féete ca corniche ouest bu ndakaaru ba foofee ca école normale supérieure constat bi benn la yile embouteillage sax dañ leen daal di nemmeeku fépp ci biir capitale bi mu nekk lu metti ci chauffeur yi ndax am foo jaar sax doon na lu jafe yenn saay sax faaw ñi di tàq der yi taxaw ngir rek mën a organiser li di circulation bi. c'est infernal foo ko natt moom weesu na moom loolu moom mën naa la ko confirmer perte de temps bi. loolee lañ nemmeeku ba foofee ca Grand Dakar fii nag li ko gën a yokk di ñëw bus rapide transit bi mu nekk li nga xamante ne dafa rek xatal yoon yi ko sëkk. BRT bi moo waral embouteillage bi ndax ndax gis nga fi ne nii fii dañ lay aaye nga tourné gauche te fi ne boo rond-point ba ngay wëri te rond-point ba dafa sori. fi ne daal am na lépp am na mais embouteillage kenn mënut a liggéey ndax embouteillage dafa weesu gàllankoor bu ko mënee weesu kay mënee weesu na ngir rek mucc si le embouteillage sénégalais yu bëri li leen gënal mooy jël cak-cak yi ndax gaaw a yegg fu ñu jëm. soo gisee gars yi di gën a utiliser cak-cak yi. mais raison pour laquelle parce que circulation bi moo andi loolu. embouteillage waaw am na ñu andil jafe-jafe am na ñu andilul jafe-jafe man de moom ku mel ni man du la andil jafe-jafe. macha allah ñu ngi gis baax baax. ñu bëri nag jàpp ni que li waxal yile embouteillage bokk na si nit ñi ñi bëree si biir ndakaaru te li ko waxal mooy entreprise yu bëri si biir capitale bi leen leen samp loolu waxal ñu daal di woo njiit yi ñu désengorger Dakar. jël bokk de ministère beaucoup de. des directions génn ko Dakar boo ko defee ñu mën a féexal Dakar tant que defuñu loolu Dakar chaque jour embouteillage du fi dañ parce que tout est centralisé à Dakar. donte ne sax nguur yi jël nañu ay jéego yu am solo ngir xeex yi li embouteillage dem sax ba defar ay autopont ak li ni mel terewul ba tey moo ngay gën di jéggi dayoo si biir réew mi.